di santu aussi di gërëm madame Aminata Mbeng Ndiaye première secrétaire générale du parti socialiste bi am xalaat bu rafet bi xamne bis biñu jaglél Ousmane Tanor Dieng parti socialiste rek momuko Sénégal yépp ko bok Afrique yépp ko bok mu bolé ci opposition bi xam yitam gi mu xam sama digënté ak Ousmane Tanor nga xam ni cofeel gi amoon suñu diggante yàlla rek moo ko mën a seede maa leen maa leen gën a namm mais tey bisu recueillement la bisu ñaanal suñu frère ak suñu xarit muy Ousmane Tanor ñun ñëpp ñoo ci daje puisque ñun ñëpp la seqaloon langue politique bi ñun ñëpp la seqaloon àddina loolu moo tax mënuñu tànqamlu bis bu mel nii ñu ko koy jagleel mu fekk ñu senegal te te duñu ci teew.